ahousubillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmaani irahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yi noo leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci fukkeelu jataay ak juróom ñett ci téere bi di xalimag leer ginnaaw bi nu weesoo eh, xasiid ak sindiidi ak xasiid ak toxfatul noo ngi ci xasida ak Matlabus Sifaay kon wet yi wax ci wàllu ñaan eh, ci lañ nekk ba tey Matlabus Sifaay bokk na ci sëriñ xasida yi sëriñ Tuubaa di ñaane nu gën koo miin ci sàkku wér gu xasida la koo xam ne sëriñ baa ngi ko bindi Tuubaa ay bayitam toll ci juróom fukk ak benn bokk na ci yi nga xam ne sëriñ Tuubaa mi ngi ko ci ñaan sunu borom mu jëñal ko lépp luy lor ci barke bi yonente bi sallallahu ak ci barke koor am na ci bayit woo xam ne Sëriñ Tuubaa da ci woo boroomam ci juróom benn tur yu bokkul yallaahu yaa rahmaanu yaa rahimu yaa barru yaa karimu yaa azimu ba sëriñ bi mi ngi ci ñaan boroomam ak njëggal ak jàmm ak jëf ju ñu nangu ak kaaraange mu ngi ci ñaanit ay teggin ak ay may xéer ci topp yàlla mi ngi ko ci ñaan mucc ci tàyyal ak mboolem gàkk-gàkk yi ak caay-caay yi mi ngi ci ñaan sunu borom ne ko bépp barab bu jàngoro nekk wàcce fa saafara bépp barab bu loolu nekk yàlla nga fa wàcce ay njariñ bépp barab bu awa ay nekk yàlla nga fa wàcce jàmm bépp barab bu ak réer nekk yàlla nga fa wàcce xam-xam bépp barab bu ak nay nekk yàlla nga fa wàcce ak tabe bépp barab bu ak ñàkk nekk yàlla nga fa wàcce ak am koom am koom bépp barab buy bu ak weddi xéewal nekk maanaam ñuy fàkk jëf yàlla na nga fa wàcce ak cant mu ngi ñaanal mboolem jullit ñi ci xasida gi mi ngi ñaanal mboolem jullit ñi ak wér te yàlla fegal leen ragal ak jàq mu ngi leen di ñaanalit mucc ak jàmm ak ñeewant goog sunu borom mu mel ne ku taxaw diggante mbindeef yi ak seen borom di leen tinu mel ni kuy jëlal nit ñi daal intervention ci seen digg ak seen borom daa wax ne sunu borom mbindeef yi yan na nga leen musal jàmmal leen te ñeewant leen te bu leen jàppe seen bàkkaar yu bari yi ndax ñoom kat ndax ñoom bu dee dañu lay moyit càggante rek a tax waaye bokkaale la ak kenn seen yaram yi àttanul sa balaa ndax doye di gu nekk ci ñoom seeni xolit du jéng mukk jëm ci kudul yow tey ak ëllëg waaye bànneexu cër yi moo leen di sàgganloo di leen jëme ci yi gën a bon bu leen jàppee loo xam ne du la wàññi te na nga leen may loo xam ne du la jariñ maanaam daal sunu borom tooñu mbindeef yi ko dara te mu jéggal leen it euh, mu njariñ loolu lay wax ci bayit yi tàmbalee wana jihim wa aafihim bihim wala tuwaaxidhum bi kasri danbihim ba ci baytu fala tuwaaxidhum bi ma laa yanqusuk wala humu billadi laa yanfaxuk noo ngi yam foofu assalaamu aleykum wa wa barakaatuhu